ñu ngi sant yàlla bu baax di julli Seydina Muhammad di sant suñu ñaar waajur di wax inna lillahi wa inna ilayhi na ndax tamit yàlla moonu moom moonu sàkk wàcc ñu fi si dunya te bi ñu sàkk ñu tàgguñu ko xamuñu si dara moom moo ñu fi indi saa bu ko neexee la jëlaat mais yàlla nu yàlla xiir si lu neex suñu borom mais nu mujj rafet Papa Yada yàlla na yàlla yërëm avant tout di ko jaale senegal di ko jaale àddina Papa Yade ni ma la ko mën a waxee muy Assane Diop euh, dafa nekk xale may dem si gaalu papaam géej boobu Papa Yade juddoowul donc xam nga yàlla def mu màgg doon xale gis ma may bare muy ànd ak man di ànd man ba tey li mu doon yàlla def ko mu doonoon booy bu baax booy bu jub du tooñ kenn nag mais ku ko tooñ ku nekk dina la jéggal bu la mënee jéggal bu la mënee wax ak yow dina wax ak yow. mu doon xale aussi xale la bi vingt-sept ans doon jàmbaar ndax jàmbaar gi mu doon mooy liggéeyam da si dem ba jeex takk moo waral tey gis nga bi mu dëddoo ay soppeem ay am di jàmmaam ay ay nitam ñëpp ñëw fekk si ko. waaw booy bi la 26 la def soog. 26 la def soog si guddi gi si teneelu tëngéej bi teneel bi amul làmp euh, si teneel bi demoon ay cant ay trois heures deux heures yooyu. bi muy ñibbise nag si la yor mbëtaam di dawal xam nga tunnel bi dafa xóot boo duggee rek boo defaatee nii booy ñëw alir ngay ñëwee xam naa nag gisul tunnel bi gisul machine bi quoi si la machine si la dal si machine bi nag dal bi mu dal mu metti bopp bi ak tànk bi tànk bi damm zone bi dëbuwaate loxo bi lépp xam nga mais lépp li ëpp solo yëpp si bopp bi la daal te bopp mooy nit tey mu ngi si dëgg maa si fenn li mu bëggoon daal mooy dimbali yaayam dimbali papaam dimbali yaayam loolu moom mosul jóge si gémmiñam waxee mënuma grand mbër man daal sama yaay laa bëgg dimbali man bu ma amul dara sax grand man sama yaay ak sama papa moom man il faut ma rayante dimbali leen ndax tellement que Assane Diop nag dëgg rek moo neex yàlla mais yaayam daa sonn si moom de man fekk naa li ma la yaayam billaay wallaay tallaay am na ay doom de mais fi mu teg Assane Diop fi mu teg papa yaata tegu foo benn doom ndax tellement que xaritam la woon. mu di nga jur doom bëgg ga am sa moom cofeel noonu la demee yaayam na papaam tamit xale bi dafa neex a digal dafa neex a faral dafa neex a àndal xale bi dañ ma ekkati jox ma ko woon yaayam na ma mu ngi nii bu baaxee yow la bu bonee yow la làmb la bëgg mu ngi noonu say loxo ba si koor gi rek bi ma defaree sama gaal gi gambi war ko indi jëli ko gambi war ko indi Sénégal maax moom ñoo ànd def ñetti jours si géej bi maax moom ànd yaayam na ko yoroo baas mu ne ko ama fu mu dee ma dee fa loolu wax yaayam billaay walaay talaay mu doon nit booy boo xamante ni kenn ñàkkul ma maa ñàkk man xam naa la man xam naa booy bi li mu ma jariñ booy bi tamit xam na man li ma ko doon jariñ damay dem États-Unis ñëw billaay walaay sama yëre yi gën a baax wala dàll yi gën a baax booy bi laa koy jox tellement rek bu ko gis naw ko ndax dem na ba commencé am tur kon donc man mii nga xamante am naa tur sant yàlla donc man dama war a jël xale bi defar ko defar bi ma ko war a def mooy muy sol lu baax ku ko gis naw ko ku ko gis bañ ko yërëm mu bañ a xaye di xam nga na si loolu laa nekkoon naax moom nekkoon naax moom dañ liy xeex ba moom dañuy reyante boobu man maa def lu lu tàkkata du mu wax ko maa koy poñe lu ma neex ma def ko ko ndax bëgg rek mu tegu si yoon déggaloon ma lu ma waay wax si biti boobu xeexal ma défendre barki yonenti yàlla Muhammad keroog bi mu gaañoo dem naa principal fa laa nekk fa laa finaan ma xam magam bu góor Aliou fa lañ finaan fa ne toppatoo ko zéro jaabante na tëngéej fii quatre fois pour lijjanti dossier yi nekk si sonn si kii pour mën a jog si koor bi nag ndaw la yàlla na àggalee ndawam àjjana fir daw si yàlla yërëm ko ah képp ku mu fekk yàlla xaar ko àjjana ndax nit koo xamante ni nit ku baax deful dara muy dara te nit xol xol bi yaatu mën de la fees yërmande man li may wax ni dund naa xale bi nag xale bi bi mu juddoo sama kanam ma xam ndijaayam ñoo laan ànd grand gueule mu ngi espagne maa koy nuyu en passant papaam di campagne fu ne mbuur jifir fu ne dëj bi fu ne doomu aadama ñëw na mbuur juwaala jifir ken bàyyiwul ñëpp ñëw nañ si dëju boy bi ndax booy bi tellement que ni mu meloon baax bëgg nit ñu ñoo ay xaritam bu tutank yi ñoom lay àndal cante yi mooy tëgg sikar te foo fekk mu ngi tudd baatu laa ilaha illallah muhammad rasulullah foo ko fekk moom lay sikar bu toogee ni moom lay sikar te maa ngi wax occasion sax si promoteur di di wax di lancer appel pour ni ñu defee dëkk bi yëpp ay làmp ñu def ko fi nga xamante oto yi fa la ñuy aw si teneelu Tëngéej mu ay làmp nit ñi mën a xool fi ñuy aw ndax li dal Papa ñaanuma ko yàlla mu dalaat keneen ndax ñu ñëpp ay jullit lañ mais surtout tunnel bi ndax tunnel bi day bari oto dañ si war def ay làmp gars yi di gis fi ñuy aw te par exemple boo demee États-Unis ma joxe bon exemple boo demee seen tunnel yi yow da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay jéem a sax dangay ngay yii da ngay waaru si yàlla ndax tellement que tineel yi lamp yi si nekk leer nañ kon suñu tineel bi matul tineel matul tineel de mais dañ si war a def ay làmp mu leer nit ñi xawal fi ñuy dox ndax li dal Papa Yade suñu rak bugguma mu dal keneen tineel bi amul lamp encore une fois maa ngay lancé appel maa ngi koy wax préfet sama xarit la maa ngi koy wax tineel bi mu def si làmp man kay e wax meeru tëngéej daawdu ñaa teneelu tëngéej bi ñu def ci ay lampe nit ñi xam fi ñuy tek seen tank ndax tenel bi nit ñi ci lañuy aw nit ñi ci lañuy aw seen tank si territoire bi day fa war def ay lampe ndax auto yi baña dal ci kaw ken lolu man kay lancer appel di si wax Macky Sall borom rew mi tëngéej na ci japp tëngéej développer tëngéej développer wul wax du neex dañu waxante deug ndax tamit yalla deug la bëgg yàlla sunu borom dëgg la ba kanaal yaa ngi nii fees del ndox kenn xamul foo mën a aw te ngay Mbaye Jacques fii la nekkoon nem si yàlla si yàlla yërëm yàlla la barara ma yaa seen barke démb a gaañu sunu meer nit ku baax yàlla na yàlla yërëm xaar ko àjjana Njawar Touré yàlla na sunu borom yërëm xaar ko àjjana ku baax tëngee ndaanaan yooyu noonu war na yaa mën a tëngee waru la suux quoi waru la dee nii waa pour lan te Macky Sall bu soxlaawee bu def élection tëngee mooy gagné tëngee mooy gagné. billaay wallaay talaay tëngëj mooy gara te am na loo xamante nag jarul a wax quoi nee nu jàppale dimbali ñu surtout ñu dëj bi amul benn autorité bu fi teg tànkaam loolu dafa ñaaw muy CNG lit muy keneen ak keneen kenn ñëwu fi te booy bi booy booy la te ñëpp la bëgg tey boo gisee dëjëm bi jarul sax may ooke ndax dëjëm bi rek wane na na booy bi borom baax la yàlla taaral na ko yàlla yërëm na ko booy bi yàlla bu ko ca dugg billaay wallaay talaay mais autorité yi tëngee ji waroon na mën a déplacé wu ñëw. benn monsieur le maire maire ouest laa fi gis kese gisaatuma fi nit te booy bi si tëng si dëkk bi la dëkk doon fi ndaanaan doon champion billaay wallaay talaay foo ko see foo ma séenee seen ko sama ginnaaw kon donc am na loo xamante ni xam nga rafet tey mu ngi nii jéena booy bi dem na uyu ji boroom ñu ñoo fi des liñ man mooy ñaanal ko.